tey nag ñu dellu siwaat ci émission bi ci mooy ar ñu fas yéene ubbeendoo ak yéen suñu lettre bi pour mën a génne message bi nga xam ni moom lañu fas yéene décortiquer tey fas yéene ko waxtaan ak yéen incha allahu taala bu ko defee mu doon message boo xam ni day génnee ci société bi delloo ci société bi bokk yi xam ngeen nii jamono fi mu toll ak xew-xewam dana jekk dana jaadoo tamit fu ñu toll ñuy waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ni luy jagal penc mi la ci muy luy jogal société bi mbokk yi suñu message tey jii nag li mu indi mooy message bi dafa wax ni ana lan mooy taxawaayu jigéen ci li nga xam ni mooy actualité bi nga xam ni mooy li am ca mooy tabaski ban rôle la jigéen joué ci tabaski lan moo ci wàccuwaayam ak lan moo ciy taxawaayam ak yan tànk la ci war a taxawee ba man cee jot ngërëmul yàlla suñu boroom waaye tamit man koo am ni nga xam ne noonu la ko bëggee bu ko defee kon mbokk yi ñu àndandoog yéen nag jéem a jàngat message boobu jéem ko décortiquer ci muy xalaat yoo xam ne dañ koy jëlee ci société bi fas yéene ko delloo si ci yéen awdu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax kilifa diine yépp di jiital ci biir nuyoo boobu nag cheikh muhammadul muntaqa xafisahu llahu wa raahu di teg ci nuyoo boobu xalifatu attijaaniya waaye di delloo tamit ci nuyoo boobu mboolem xulafaa uturuq yi ca mooy xulafaa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk pie yi nga xam ni ñoom ñoo ñu téyal diine ji di ñu tette di ñu nàmpal ci yoon wi nga xam ni moo di yoonu lislaam mbokk yi thème bi ñu indi tey day wax ci tabaski tabaski googu nag wàll gi ñu ci jël mooy jigéen ci boppam lan mooy taxawaayam bu ngeen fàttalikoo suñu waxtaan wi jàll doon nañu waxtaan ak yéen ci wàllum jigéen ban makkaana mooy ban place la ko lislaam teg ban place la ko nit ñi teg ak fi ko nit ñi teg noonu ndax mooy place bi mu yelloo wala place bi nga xam ne fi la ko yàlla suñu boroom teg place boobu mooy bi gën ci moom te mooy bi mu yelloo bi ñu ci waxtaan ak yéen demoon nañu ba nga xam ne ñu ngi daaneeloon ak yéen ci kàddu ci xamle kan mooy jigéen jigéen jooju nag moom lañ leen bëgg a wax ne leen day accompagner góor fu mu mën di toll mën nañoo gis ni mission boo xam ne yàlla jox na ko góor rek jigéen la toftal ci wet gi pour ñu war a ànd mission boobu pour war a mën a àggale mission boobu ci ni ko yàlla bëggee soo demee ci mbooleem xeeti jaamu yàlla yi soo fekkee góor mu taxaw da nga gis ni jigéen moo war a taxaw ci wetam ngir mën koo dooleel tey jii nag nga xam ni ñu ngi fas yéene waxtaan ak yéen ci tabaski jëmmi tabaski boobu mën nañoo wax ni solo si ci ëpp ñu war koo jàngat ca war koo delloo ci société bi mooy jigéen xam ci boppam xam ci moom mooy kan ak ban rôle la représenté moom la présenté ci biir ci biir xew-xew boobu mbokk yi xam ngeen ni sayiduna ibrahim alayhi salaatu wassalaam yonente la woon boo xam ni yonente bu yàlla fonkoon la yonente bu yàlla joxoon wàccuwaayam la takkal na ko ay garaat ak ay daraj yu takkoo takkoo takko garaat yooyu àgg na ci yàlla moom képp la wooyee ci yonente bi li ñuy wax alxalil ca xalil mooy koo xam ni dafa am lu ngeen xaroo yéen ñaar ci wàllu cofeel yàlla nee na man maa tànn sayiduna ibrahim mu nekk sama xarit ma def ko wa taqasa allahu ibrahimu xalilan sayiduna ibrahim moomu nag mi ngi am garaat boobu ginnaaw bi nga xamee ni yàlla testé na ko ci wàll gu nekk gis ni réussir na ci wàll boobu yàlla testé na ko ci reyloo ko doomam bi mu gën a bëgg mu gën a sës ci moom ca doom jooju bi mu koy am booba am na juróom-ñeen fukki at ak lu topp moom moom Seydina Ibrahim soxnaam si nga xam ni moom la amal gone demoon na ba naagu ni du am doom ndax amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn Seydina Ibrahim doom jooju yàlla teste na ko ci ngir xool ndax moom mii bëgg na ko ndax moom mii nangu na dogalub yàlla ci moom waaye ndax nangu naa jaayante def exécution boobu ngir lan ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala ba mu demee ba nga xam ni matal na loolee nga xam ni moom la dëxalante woon diggante moom ak boromam yàlla markel na ko foofu ay point waaye yàlla natt na ko ci boole kook buur bu ñu wax namruuz ca kanaan buur boobu natt ko ci bépp xeetu nattu ngir mu mën a dellu ginnaaw ci diine ji mu nekk ci mooy diine suñu borom waaye terewul mu continuer di woote ci ci woote ci yoonu yàlla yàlla markel ko ay point foofu buur boobu ci kàccooram dem na ba jël sayduna ibrahim taal ab sébb ba mu rëy sébb bi gën a rëy ñu sànni ko ci biir yàlla di ko ci natt ngir bëgg a xam ngëm-ngëmam ak cofeel gi mu am ci yàlla fu mu tollu waaye terewut mu nangu loolu ngir wëyal yëkkati téere bi euh, kàddug yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala yàlla may ko ci loolu ay point yàlla natt ko mu génne ci suuf soosu mu dëkkloo ko ci ardul xijaaz ca mooy suuf soo xam ni lekk amu fa naan amu fa nafluwaay amu fa mu ni ko nag jëlal lenn ci sa famille nga dem dëkki foofu tuxu gedd nit ñi bàyyi sa am-am ak sa koom-koom ak nit ñi dem dëkkali foofu suñu borom yàlla test na ko ci wàll googu gis ni Seydina Ibrahim réussir na foofu moom itam jële fa ay point yàlla test na Seydina Ibrahim ci wàllu ngëmam Seydina Ibrahim wër na yàlla ci weer wi wër na yàlla ci biddiw yi wër na yàlla ci jant bi waaye dem ba yàgg mu gis ni ndekete ki bind jant bi ak weer wi ak biddiw yi kooku rek mooy yàlla yàlla test na ko ci wàll googu mais gis na ni Seydina Ibrahim ba tey réussir na ci test boobu yooyu yépp nag ak yi ñu xamul bi ko yàlla boolee muy mbooleem li nga xam ni yàlla doon na ko ci test réussir na ci loolu yàlla takkal ko garaatub alxalil noonu la ko ta takkale garaatub assaadiq noonu la ko yàlla takkale mooy as-siddiq noonu la ko yàlla takkale garaatub saalix noonu la ko yàlla takkale garaatub xaliim awaa muniib kon garaat yooyu nag seyduna ibrahim mi ngi ko am ci nangul gu nangul yàlla suñu boroom yàlla boole kook soxna soo xam ni moom la ñuy wax haajara ca moom soxna si mu jëkkoona yor mooy saara saarata amul ak Seydina Ibrahim doom ci jamono yooyu waaye ñàkk gi mu ñàkk am doom tax na bi mu nekkee ci buuru Misra ca buuru Misra boobu nga xam ni moo doxoon histoire ba dox diggante moom ak buuru Misra ba mu téyee soxnaam si foofu ca la ko ca dal dal ko ca ci kàttanu yàlla yàlla teg ko ca feebar boo xamante nii tax na mu bàyyiwaat soxna Seydina Ibrahim soosu soxna soosu nag ba mu koy buur ba di bàyyi daf ko boole ak beneen jigéen bu ñu wax Haajara mayaale ko ko Haajara moomu nag am na histoire lu mu nettali nii rakk la woon ci buur bi waaye li gën a wóor moo di ni buur bi daal jox na saarata moomu jigéen ngir mu jàppale ko jigéen jooju nag moom la saarata gis ni daf ko war a may Seyduna Ibrahim ndax yàlla wërsëgal ko ci doom ndax mu bañ a bañ a ñàkk koo xam ni moom moo koy moom moo koy moom koy doon yàlla mi dara tawul bi mu ko joxee soxna soos yàlla doxalee diggante jigéen ñi xam nga ni seeni mbir mu xaw a am li ñuy wax alxiyara ca mooy mu xaw ko comme li dox diggante jigéen ak moroom ji mu gis ni kii daal xaw na ko fiire diggante moom ak Seydina Ibrahim bi mu demee ba nga xam ni yàlla dogal na mu jël ci seyduna ibrahim ëmb mu daal di giñ ci yàlla moom haajara moom saarata ni daal haajara mii day bañ naa ko bañ goo xam ni fawuma wàññi ci ay cëram dara dinaa tuur deretam loolu yàgg na ci jigéen ak wujjam léegi bi yàlla dogalee mu am doom mu jaaxle ci giñ gi mu giñoon ndax ku ku ku ku gëmoon yàlla la moom itam giñ googu mu giñoon mu ñëw ci Seydina Ibrahim laaj ko ni ko waaw nu may def ak sama giñ gi ca man giñoon naa ne saarata mii dinaa tuur deretam mu ni ko dangay jël ràbb nga bënn ay noppam mbokk yi foofu la ñu wax ni Seydina Saar Sayyidatuna Saaratu moo jëkk bënn ay noppam ci jigéen ba mu bënnee nopp yi mu ni ko dangay bënn ay noppam ndax deret ji tuuru ndax sa giñ gi mën a wàcc mu bënd nopp ya mu ni ko nag kon wutal lu mel ni ay jaaraw nga takkal ko kon sayyidatuna saara moo dëkk takk jaaro ci jigéen ci doomi ki nga xam ni sayyidatuna hawa waaye mu gis ni jaaro yooyu mu ko takkal dafa mel ni dafa gën a dolli ab taaram waaye mu gën koo mu gën koo fiire diggante moom ak ibrahim ba seydinaa ibrahim gisee ni ñoom ñaar ñi seen diggante neexatul mu diisoog suñu borom suñu borom ni ko jëlal soxna su ndaw si nga yóbbu ko ci ardu xijaaz boo demee nga dëkkal ko foofu mu daal di takk daal di jël ay lekkam ak i naanam teg ci sa fas wi daal di waral ki nga xam ni mooy saarata ak doomam daal di war ci fas bi yàlla dogal ñuy tukki tukki bu sori lool bi ñu àggee nag ci suuf soosu nga xam ni moo di makkatal karama mu daal di wàcc foofu jot ndigalul boromam bi mu wàccee mu daal wàcce ay bagasam daal wàcce soxna si daal ni wërëñ won ko ginaaw soxna si ni ko koo may bàyyitale fii mu ne yàlla sa borom mi ma digal ma indi le fi mom la la fi batale mu ne ko xam nga ni suuf si nga may batale ni amut lek amut naan amul wetal ay rabbi àll kesse ño fi nek aw mu fi kër aw mu fi nek mu ni ko ak sa borom subhanahu wa taala bi nga xam ni moo jox ndigalul ma indi le fi mu ni ko comme yàlla moo la ko digal man nga dellu ci yitte man yàlla doy na ma sëkk wéttal mbokk mi soxna saaratu moomu toog foofu soxna haajara boog toog foofu ak doomam ba mu toogee foofu ci doomam di lekk ñam wa nga xam ni moom lañu indaale woon ba yàgg ñam wa jeex ndox maa tamit jeex bi ñam wi jeexee ndox mi jeex doom ji xiif boole ko ak mar mu wër ba sonn munta am ndox muy baagante diggante ñaari xeer yi nga xam ni mooy xeer wi ñuy wax safaa ak xur wi ñuy wax marwata bi mu baagantee ci diggante boobu ay yoon lu war mat juróom-ñaari yoon ngir yaakaar ni dina gis ndox yàlla dogal gisut ndox bu mu naan mu jaaxle lool ci doomam ji nara faatu ngir aw mar waaye moom itam mu jaaxle lool ci boppam jaaxle googu nag bi mu ko duggee mu diis ko yàlla suñu boroom suñu boroom dimbali ko doom ji fi mu toogoon di wequtu yàlla ballal foofu ndox ci yónni Seydina Jibril mu jël am laafam dóor ko ci suuf ndox mi daldi ball foofu bi ndox mi ballee nag mu tiim ndox moomu di sëmb ci biir di wax ndox mi zam zam zam ca mooy dalal dalal dalal ca la ñu jële baat bi nga xam ni moo di baata zam zam yàlla suñu boroom nag daal di barkeel ndox moomu ci barke boo xam ni képp koo xam ni dem na màkkatal mu karama di ñibbisi sérité bi gën a rëy nga di ko indaale moo di nga indi ndoxum ndoxum zam boobu mbokk yi saarata boobu nga xam ni dafa nangu ndigalul suñu borom subhanahu wa ba nangoo toog ci àll boobu amul néeg amul lal amul courant dara wettiliwu ko foofu lu dul ay bàyyi ma dara wettiliwu ko foofu lu dul ay ndegment muy dëkk ci ay goroot ay xunti di yendu ci taati garab di rëbb di lekke ak di sàkkul boppam lu mu lekk wala mu naan ko ca lépp ndigalul yàlla ak ndigalul sëriñam tax mu def ko mbokk yi loolu jàngat la ci biir tabaski waaye seyduna ibrahim mi nga xam ni moo jël doomam ji mu gënoon a bëgg ca am ko ci atam yu mag a mag a mag a mag soxnaam si mu dem ba am yaakaar ci ni mënatu la am si moom gone waaye yàlla jaral ko mu jël doomam jooju yóbbu ko ci àll boobu ak soxna soosu bàyyi leen foofu ca lu ne man leen faa fekk ngir lan ngir topp ndigalul yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala moo tax yàlla tagg seydinaa ibrahim ni sama jaam la boo xam ni moom dafa set wecc xolam ba daa set wecc cofeel gi mu am sama digganteek moom maanaam xolub Seydina Ibrahim boo ko xaroon munoo caa fekk mbëggeelug doom munoo caa fekk mbëggeelug soxna su ko teree def ndigalul yàlla munoo caa fekk ragal ab buur bu ko taree def ndigalul yàlla munoo caa fekk mbëggeelu baay gu ko teree def ndigalul yàlla ndax baayam la jëkk a waar ci diine kon sellal gi mu sellal diggante moom ak boroomam moo tax suñu boroom subhanahu wa taala wërsëgal ko garaatub xalil waaye mu daal di toog foofu moom soxna sa ak doom ja di xaar yàlla suñu boroom jël mbiram yépp wékku ko suñu boroom ci yàlla suñu boroom nee na képp koo wékkilu ko nga ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu inna allaha baaliqu amrihi qad jaala allahu li kulli cheyin xadraan yàlla suñu boroom wërsëgal ko mu am xolub mën a muñ jafe-jafe ya fa nekk yépp ba yàlla indil ko ndox moom seyduna ibrahim dellusi waat foofu ay jamono bi mu dellusee yàlla jox ko ndigalul mu tabax kaaba gi waaye mu tëdd ba guddi suñu boroom feeñal ko ci al ilham ca mooy kàddu yoo xam ni def ni ko ibrahim dama bëggoon nga rey sa doom ji ngir jaamoo ma ko ngir jigee ma ko man suñu man yàlla sa borom seydina ibrahim yewwu woo doom ji ba mu ñëw mooy ismail mu ni ko yàlla dafa ma digal ni ma naa la rendi ini ara fi manaami anni asbahuka fansur ma sa tara xoolal loo gis dafa mel ni lu ko gént mais xam ngeen ni yonente du gént moom yàlla moo koy won doom ji daal di koy tontu ni ko yaa abati ifal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu min ash-shabirin defal li yàlla sant man ding ma fekk ñu bind ma ca listub way muñ ya maanaam lépp loo xam ne def nga ko ci ndigalul yàlla rek boo ko tegee ci sama jëmm ji lu mu metti metti dinaa ko muñ ngir jureel gi ma jur waaye dinaa ko muñ ngir yàlla suñu borom mi ko digal ca moy buur sama man yàlla Yalla suñu borom mom mu ko lako digal mom la nangul waye nangul la yow mi nga xamni yaay sama waaju sayyidina ibrahim dem ci yaay ji sarata harja hajara afwan Niko hajar, yalla def ma digal ni man na ray suñu dom ji ngir jamoko muniko budé ndigalul yalla nga ci am baye bo nga rendiko ndax yalla miñu won fi wërsëgal ñu doom ji bu ko soxlaa dañ ko ko war a jox mbokk yi xool leen boobu famille ni ñu suude woo ci yàlla ak li leen yàlla jaral soxna si ku nangoo déggal ndigalul suñu boroom la ca nangu ko topp waaye ku nangoo dégg ndigalul boroomam këram la ca nangu koo topp boroom kër bi di Ibrahim kilifa gu nangoo dégg ndigalul yàlla la ca nangu ko topp waaye ku diisoo ak njabootam ca juboog ñoom la doom ji ñu am ku nangoo dégg ndigalul yàlla la ca nangu ko topp waaye ku nangoo dégg ndigalul way juróom la ca nangu ko topp mbokk yi loolu bind la boo xam ni képp ku dib jullit war nga koo jël comme leçon ngir di ko xoole ci tabaski gi ndax waruñoo tiitaroo rekk xar mi rëy na walla mbasin bi rafet na wala sañse bi tege ne ci yoon ñun jigéen ñi ndax dañu bëgg suñu bopp mais nag cofeel gi yàlla am ci ñun ba watteel ñu xar moomee mu wat ba watteel ñu jëmm joojee mu watteel ñu ko am xar mu ëpp doole ci ñun ndax yàlla dafa bëgg ab jaamam yàlla dafa bëgg nit teral gi yàlla teral doomu aadama ca mooy wala xaddi karam naa ba nii aadam moo ñu sauvé ci kàttanu yàlla ak nangu gu Ibrahim nangul yàlla nangu gu Ismaayil nangul yàlla nangu goo xam ni Haajara nangul na ko yàlla yàlla dogal bi ñu demee ba nga xam ni war na koo rendi seytaane ñëwal na ko ay yoon mu di ko sànni ay xeer ca lañu ñu jëlee sànni jamra ca minnam bi ngeen di dégg waaye mu tër ko war koo rendi bi mu daasee paaka bi war koo rendi mu am ñeewante ci moom doom ji ni ko danga may dëpp wala nga takk say bët bi mu tegee paaka bi bay dawal paaka bi la yàlla gëdd seydinaa jibril ñu ko am naa sama jaam bu ma nangul ca kaw suuf dama bëgg nga dem ca aljana jël xar moomu yëtal ma ko ko nga dindi doom ja fa mu tëdd tëral fa xar ma ndax mu rendi ko yàlla dogal seydinaa jibril ak kattan gi ko yàlla may mu jëfandikoo ko ci ay laaf indi xar moomu seydina ibrahim bi mu gëmmee ay bëtam ba dawal paaka bi loxo bi tooy ak deret bi mu yëkkatee loxoom gis na ni am xar la rendi waaye rendiwul doomam mu geestu seen doom ji taxaw ci wetam mu daldi sukk ñaari bëti woomam yëkkite ñaari loxoom sant yàlla suñu borom ba rendiwul doomam ji te itam seytaane mënu ko ba mu ñàkk def ndigalul suñu borom yàlla di koy woo nag ni ko ibrahim xat sa dëxta ruyaak nii laalay lay boolee ci ñi nga xam ni mucc nañu ci àdduna ak àllaaxira gis naa ne yow Ibrahim daal test bii moo doonoon dernier test bu ma la doon testé waaye gis naa ni réussir nga ci kon nag dinaa la def ngay bàyyi jullit ñi mais dinaa la jox itam garaatu nga nominé leen ñoom ci seen bopp ndax ki war a ñëw nekk ngën gi mbindeef ca mooy Sayyiduna Muhammad su dikkee dama naan ko toppal sa baay Ibrahim kon nag say jox leen aw tur Seydina Ibrahim ni bis naka tey tudde naa leen almuslimuun huwa allazi samaakum muslimiina min qablu moo tax yàlla ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ibrahim moo leen jëkk a tudde ay jullit ca mooy koo xam ni aslama nafsuhu lillahi subhanahu wa taala mooy koo xam ni jébbal na léppam suñu boroom subhanahu wa taala Seydina Ibrahim réussir na ci test boobu sant na ci yàlla suñu boroom ñépp war a wax alhamdulilah ndax nëga kenn ku nekkoon kon sa taaw nga waroon a rendi tabaskeeku waaye kattanug yàlla aku mbaaxam mu indil ñu loo xam ne lew na doom ci ñun dagan na ci ñun ñu am ci suñu biir am ci suñu yàlla kon nag mbokk yi nañu xam ne loolu ab jàngat la boo xam ni warees na cee mën a tëgg ay leçon jariñoo ci ñun jullit ñi au lieu kon ñu def ko mu nekk pagaay wala boog mu nekk fowukaay wala mu nekk ngir sañse wala tiitaroo say xar wala tiitaroo leneen ak leneen kon nag aw bind la woo xam ni jullit bu ci nekk war na cee mën a jariñu waaye jullit bu nekk war na cee mën a bàyyi xel ngir mu nekk leçon boo xam ni dana ci jële ak ragal yàlla ndax Seydina Ibrahim yàlla daf ko wax ni ko lan yanaala allahu luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na yow ibrahim nanga nga xam ni yow ibrahim na nga xam ni deret jii ngeen di tuur amaluma njariñ yàpp wu du fi amaluma njariñ waaye li ma amal njariñ mooy ragal yàlla jëfe ndigal gi nga ndigal ak moytu gi nga moytu tereg suñu boroom subhaanahu wa naka noonu Ismaayil moomu laa àndal tabax Kaaba ga yàlla defal leen nag barke boo xam ne daf leen a toppe foofu ba des foofu ci biir makkatal mukarama nga xam ne du ñu bay du ñu yet du ñu gor waaye xéewal yi ëpp ca mooy pétrole li gën a seer ci àdduna foofu la gën a bari xéewal gi nga xam ni mooy gi nga ëpp ci àdduna bi nit ñépp soxla ko ginnaaw yàlla ak ñaanam googu nga xam ne moom la ñaanoon foofu la dese kon nag mbokk yi bind ngoo bind boo xam ni war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax bind ngoog boo xam ni jigéen ñi war nañ cee mën a jël référence ci sayyidatuna Haajara góor ñi war nañoo mën a jël référence ci sayyidina Ibrahim ndaw ñi war nañoo mën a jël référence ak royukaay ci doom ji nga xam ni moo déggaloon baayam ca moy sayyidina Ismail alayhi salaatu wa salaam la yàlla barkele Ibrahim ba nga xam ni càllalaam gi domam yonente la won setam yonente la setter settërteem yonente la won ci barkel bu yalla barkel seen parcours bobu ñu def waye nangu gu yalla nangu seen jëf yi kon nak li am solo moy nangul yalla suñu borom deggal yalla suñu borom top yalla suñu borom kon nak mbokk yi ñu ngi yëkëti fi suñu jotaay ñi ngi sant ñepp di leen gërëm di nuyu bu baax baax ki nga xamni mom moy yilif télé bi di soxna xaar ñu ngi koy nuyu bu baax diko ko diko nuyo ki nga xam ne moo nekk ci caméraman bi aussi ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm réalisateur be tamit ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balwaq ñëpp te di leen balaq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk maam Thierno ci la ngeen jëf